bi suñu borom maye maye bi ñu suñu borom maye occasion ñu toog fii eh, wara def le bilan ci élection au conseil des collectivités territoriales bi nga xam ni def nañu ko ñeenti fan ci mois de septembre lii occasion la pour ñun pour wone ni Benno Bokk Yaakaar ànd nañu ci biir département de Thiès pour ay victoire ay victoire yi victoire urne yi wane nañu li nga xam ni moom lañ doon xaar ci électeurs yi au conseil des collectivité territoriales moo xam conseil municipal la moo xam conseil départemental ni ñu ko defee rafet na lool te yaakaar naa victoire bi ñëpp d'accord nañu ni ñun feetuwuñu ko sax mais c'est une très grande victoire donc ñi ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ni liggéey nañu en direction de cette victoire loolu nag euh, di ci gërëm particulièrement waa presse def nañ ci liggéey bu am solo yenn saay sax dañ doon ànd ak ñun di relayer lépp li ñuy def parce que ñun ñëpp ñoo àndoon wër commune yëpp waxtaan ba li ñu bëggoon ñu am ko donc loolu mën nañu ko xayma sax ci 74 pour cent suñu victoire bi maanaam ñi doon woote boo jëlee téeméer yi juróom-ñaari fukk ak ñeent yi ànd nañu ak ñu mais nag liñ ci yokk te ñu ko sax ci kayit bi mooy nii ñi nga xam ne ànduñu woon ak ñoom sax bu ñu ñëwoon élection ñu gagné leen à autour de cinq ou 60 pour cent. donc ñi nga xam ni dañu ni woon sax duñu dugg duñu dugg tur bi ma xam tur bi nga xam ni bëgguma ko wax ñooñu bu ñu ñëwoon sax te wootee ñoom ñëpp ñu may leen ak absent yi parce que suñu xarit euh, le maire Talla bi nga xam ni candidat la woon def ñoo wóolu ba jóge fi dem màkk ñaani pour que ñun ñu gañ donc ça veut dire que victoire bi elle est largement méritée léegi nag loolu dafa wane ni toll nañu ci changer li fi nekkoon mais bu ñuy wax changement changement qualitatif du changer pour changer parce que umpul kenn ni président de la république dafa taxaw ci changer Sénégal secteur boo jël def na ci un bon qualitatif maanaam avancé na secteur boo jël na amul benn boo xam ni mën nga ko jël tey te amul avancement buñ ci duggee buñ ci duggee du ñu génn. mais secteur yëpp am na avancement et c'est visible c'est palpable yaakaar naa bu ñu demee ci élection yi dinañu ko waxtaan ak euh, waa Sénégal léegi nag dañu ne war nañu ci tirer ay leçons ànd bi moo tax ñu agsi fii donc ànd moo ñu jig ànd moo jig waa Thiès suñu ànd Benno Bokk Yaakaar donc président insisté na ci bu baax a baax moo tax bu ngeen gisee toogaay bi responsable yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen parti yëpp ñu ngi fi bàyyiwuñu kenn xeebuñu kenn ça c'est la volonté du président de Benno Bokk Yaakaar mais c'est aussi la volonté de tous les leaders de Benno Bokk Yaakaar profiter au passage di féliciter suñu xarit euh, Ousseynou Keita ci président Tanor bi nga xam ni président de la République jébbal na ko le Haut Conseil des collectivités territoriales mu nekk suñu ndam ñu am ci kontante parce que nit ki xam nañu ko bon léegi wóor nañu ni les résultats dinañu ko am résultats yi ñu ci xaar donc di ko féliciter bu baax a baax di wax ni absolument lii nii bu ñu ko amee waxaat ko bamtuwaat rek président de la république loo moom la bëgg les leaders de Benno Yaakaar moom la ñu bëgg donc war nañu ci jàpp bu baax a baax donc loolu ñu ni ñu ràññee ci ñaari affaire muy benn bi mooy ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon ñuy def investiture def nañu ko te coow jibul tànn nañu ñett ci département bi yépp ñun ñu ànd voté parce que xam nañu ni ñëpp mënuñu nekk ci liste bi ñun ñëpp ñu ànd ci di wax ni aussi loolu c'est-à-dire que xol lañu maye gëm-gëm lañu lañu la ñu àndal loolu moo tax ñu nangu ko di wax ni leader yi wax naa ko sànq leader yëpp ñoo àndoon booba amuloon benn problème bu ñuy def euh, donc euh, euh, tournée yi loolu dafa war a continuer dafa war a sax donc coalition bi Benno Bokk Yaakaar bu Thiès def nii képp ci ñun na am générosité maanaam na may xolam pour que ñu mën a ànd ci engagement que encore une fois il faut que ñu defaat ay yeneen investiture élection législative parce que jot na février mois de février war nañu tànn ñaari ñi nga xam ni ñoo ñuy jiitu jiite donc ci liste bi list législative ñoo ñuy teewal donc dina am benn góor dina am benn jigéen. benn rek la ñuy taal benn. ah la mu wax rek mu d'accord donc tey léegi donc loolu bu ñu koy def il faut ku ci nekk dem ci nu bi ma doon wax sànq maanaam képp ku ñu tànn na nekk ci ku nekk ci ñun bu ñu joxee tur bi. ñu xam ni tur boobu ñépp nañ ci gis seen bopp loolu mooy tax ñu mën a gañee parce que day day yombal lépp parce que ku ci nekk mooy dem këram ku ci nekk mooy gis militant am donc boo ci d'accordul bu demee kër ga mën na wax gars yi na ah affaire dañoo tànn di waaye gars yi na ngeen waaf loolu nag buñ bu fi am parce que euh, olof Njaay nee na balaa nga ne naam ne fa Ah, du noonu man ab séeréer laa de ah bon dès l'instant que bu fekkente ni gagnoo doo fa nekk mais nga gañe nga nekk fa moo gën donc yaakaar naa loolu lu am solo la donc euh, di wax ni encore une fois jongante boobu mooy élection législative bi ñu jëm pour ñu mën koo gagner il faut que ñu inscrire suñu militants yi il faut ñu inscrire Sénégal du militants yi kese parce que nit mën na bañ a faral yow tey mais bu fekkente nii yaa ngi waxtaan ak moom wax loo xam ni lu yeenu maanal mën na am mu votel la donc nañu inscrire nit ñi continuer di waxtaan ak ñoom ce sont les mêmes sénégalais qui sont là aujourd'hui bu subaa ñu nekk feneen suñuy doom la suñuy rakk lañu suñuy papa lañu suñu lépp lañu donc il faut que donc ñu liggéey ci mbirum inscription yooyu te xam naa ni loolu bu ñu ko bu ñu ko defee. Euh, bu ñu gañee li nga xam ne président de bu bëgg na ko ci Sénégal mooy émergence am naa yaakaar ni dinañu ko am maa ngi leen di gërëm di leen sant. particulièrement presse parce que dem nañu le 4 du mois de septembre ci 2016 bi dem nañu élection au conseil des collectivités territoriales ngeen taxaw ci aussi taxaw bu rafet yenn saa yi sax da ngeen di def ay direct donc ñu ngi leen ci gërëm di leen sant parce que yaakaar naa. bokk ngeen ci li nga xam ni moo mën a jëmale Sénégal kanam parce que bu waree émergence moo waroo bàyyi benn secteur te kooku je pense que c'est extrêmement important parce que communication bi lu am solo la parce que yenn saa yi di ngeen wax loo xam ni dina am impact bu rëy rëy n'est-ce moo xam électeur la moo xam ci nit ñi moo xam ñi nga xam ni ñi ngi seen seen néeg mënuñoo jóg donc li ngeen wax aussi war ngeen ko saytu bu baax a baax am na solo pour Sénégal parce que il doit y avoir un mouvement d'ensemble boo waxee émergence war na nekk mouvement dansant donc tey dañu ñëwoon pour waxtaan ak militants yi waxtaan ak euh, département de Thiès waxtaan ak base Sénégal ci li nga xam ni liggéey nañu ko ci euh, donc 4 septembre boobu dem nañu élection élection yi euh, yaakaar naa gagné nañu ko grandement 74 pour cent maanaam téeméer boo jël ñeent fukk ak fukk juróom-ñaari fukk ak ñeent bon ñoo ànd ak ñun te di di ci yokk ni même ñi nga xam ni ñëwuñu woon élection yi bu ñu ñëwoon ñu duma leen parce que tout simplement euh, li ñu am ci voix passé na 55 pour cent de l' ensemble du corps électoral donc pour wax leen ni boobu euh, donc euh, mën nañu wax ni majorité am nañu ko léegi donc war nañu liggéey pour conforter donc majorité mais nag li ñu door ci au conseil des collectivités territoriales maanaam ànd bi ñu ànd Benno Bokk Yaakaar parti yëpp ànd ñun ñëpp nekk benn ci ndigalu. président de la république président de l'APR ak président Benno Bokk Yaakaar ak leader yi yëpp li ñu yebal bu ñu ko defee li ñu wax bu ñu ko defee yaakaar naa prochaine élection yi aussi dinañu am euh, victoire donc di ci féliciter au conseil yëpp yi nga xam ne participer nañ ci di gërëm aussi militants yi parce que ñoom ñoo nangu militant Benno Bokk Yaakaar ñoo nangu ñett ñi ñu tànn ñu ànd ñëpp voté leen donc ñu ngi leen di gërëm ci loolu di leen wax ni am na beneen jongante buy ñëw. bu boobaa aussi tànn dina am ñu nangu ki nga xam ni bu fekkente ni tànn nañu ko rek ñu yaakaar ne mooy ñun ñëpp donc vraiment loolu laa bëggoon ñu ñu ànd ànd ànd fépp la moo xam parti bi la moo xam benn Bokk Yaakaar mais parti bi ñagas-ñagas yi ci amoon am naa yaakaar ne dina jeex parce que ñu ngi wax te gis ngeen bu ngeen déggee ñu wax am nga ni ni ñu doon waxee bu njëkk mu ñuy wax léegi am na changement parce que am na am na am na plus d' assurance te dama ni parti bi dafa nekkoon en maturation maanaam euh, mi ngi mi ngi doon dund euh, te tey léegi xam nañu ni àgg na ci ci adulte gëm naa ne àgg na ci adulte biir Thiès coow li bari woon na mais euh, di wax ni en tout cas maa ngi ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañu ci te am nañu yaakaar ne bu ñu defee nii élection législative yi. ce sera une promenade de santé élection présidentielle yi. yu ñu ngi bëgg carte d'identité yu mais amaguñ parce que benn commission du toll na Thiès quand euh, tuuti na euh, fu ngeen si toll. oui effectivement commission yi ce qu'on appelle montée en puissance yaakaar naa mooy terme bi xew léegi dès lundi di ngeen gis euh, montée en puissance maanaam dinañu yokk commission yi bu baax a baax. ñàkk kaaraange en tant que ministre gi jël. nguur gi président bi mu bi mu taxawee 2012 bi ñu ko falee. ci la commencé wax d'abord wax ni saa yi ñu toogee réunion président dañuy wax il faut être toujours vigilant loolu nag ndamu bi du ci bare parce que yàlla def na gis ngeen ni jafe-jafe yi am ci yeneen réew yi amul Sénégal di ñaan suñu borom lii mën a continuer parce que loolu la ñu xam sénégalais jàmm la am. c'est vrai que am na ay euh, ay ay crime mais boo demee ay dëkk yi Amérique Los Angeles par exemple foofu li ñu fay rey ci nit ci ci ci chaque jour kenn mënu ko xayma mais nag di wax ni Sénégal ñun ci suñu bopp war nañu waxtaan ak suñu bopp maanaam ku ci nekk war na waxtaan ak boppam war na waxtaan ak njabootam war leen bañ leen teg loo xam ni mënuñu ko bañ leen wax loo xam ni wax ju ñaaw loo xam ni mën na indi lu ne donc yooyu yaakaar naa ci la bopp mais li Euh, li nga xam ni président de la république moo ko yor mooy aar sénégalais ak am-amam loolu président taxaw na ci bu baax a baax gis ngeen li ñu jënd ci matériel euh, ci matériel ci ci défilé bi passé gis ngeen organisation gis ngeen gendarmerie yi ñu inauguré ak commissariat yi xam ngeen ni vraiment y a un boo xam ni def nañu ko donc euh, loolu vraiment. xam naa ni lu lu am solo la mais président mi ngi ciy xel bu baax a baax maa ngi leen di gërëm di leen sant. président euh, président question boobu quoi au moment bi ngeen def conférence de presse cité Balabé ñu ngi doon nekk si mbedd yi pour laaj ndox te pourtant nee na 25 millions rek moo ko war a defar. ça fait un an amuñu problème amuñu ndox. loolu tant que membre du gouvernement. waaw c'est-à-dire que donc information bi mën na am nañu ko jotee parce que li ma jot mooy ñooñu ñu ngi gor garab yi nga xam ne ci yoonu Fandène la mooy kay si dara ñu ngi koy gor loolu moo doon seen mbébét mais affaire affaire ndox mi euh, je sais que biir balaa bay am na château d'eau bu ñu fa def donc am naa yaakaar ne bu dee affaire ndox incha allah dina réglé wu kooku moom mën naa leen ko garanti jërëjëf merci